bees yi nag daal di yokk ci accusation de viol bi nga xam ni moo ko doon topp depuis 2021 mu jur nag de nouvelles tensions politique l'arrestation bi nekk une tentative de l'écarter de la scène politique définitivement ndax charge yi nga xam ne moom lañ ko bëggoon sëf bu taloon ci kawam aujourd'hui Ousmane Sonko mën a toog vingt ans de prison te kenn du ko mën a génne. le lundi 31 juillet 2023 le gouvernement sénégalais annonce la dissolution du parti PASTEF le parti de Ousmane Sonko. xeex bi nag newuloon rek entre Macky Sall ak Ousmane Sonko képp koo xam ne aussi nekkoon nga liet naawu Macky Sall fexe nga teg yow tamit sa côté stratégie pour liquider Ousmane Sonko mun nañ fàttaleku l'affaire Mame Mbaye Niang Cour suprême le jeudi 4 janvier daal di confirmer la condamnation prononcée en mai dernier par la cour d'appel à six mois de prison avec sursis pour diffamation au ministre Mame Mbaye Niang décision bi moo tax Ousmane Sonko mënul présenter wu aux élections présidentielles ndax boo xoolee première tentative accusation de viol bi nga xam ne jàllul bi ñu tegoon ci Ousmane Sonko finalement dafa mujjee këpp ci ñi ko doon def ñu ñëwaat à la charge avec Mame Mbaye Niang mooy accusation de diffamation yi accusation boobu nag la gars yi pousse pour écarter Ousmane Sonko ci élection présidentielle lii lépp justice ba woon da nag jouer rôle bu am importance moo tax sénégalais yi fippu le 23 mars 2024 avec 54 virgule 28 pour cent ñu daal di fal nag le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye pour lii bañ amati Sénégal ndax justice c'est un plie essentiel bu am importance capitale pour la cohésion sociale mais également justice moo war a nekk la gardienne des valeurs et principes fondamentaux de la démocratie son excellence Bassirou Diomaye Diakhar fay mu am volonté ferme ak engagement pour delloo justice indépendance am ba tax na bi mu joxee Ousmane Sonko pour mu former gouvernement bi Ousmane Sonko le premier ministre daal di choisir Ousmane Diagne pour mu nekk ministre de la justice Ousmane Diagne le ministre de la justice actuel moo ngi juddu en 1965 le 1er janvier 1965 mu nekk nag un magistrat très respecté qui a su se distinguer par son intégrité et son indépendance tout au long de sa carrière nekkoon na fi ancien procureur de la République géré na avec rigueur des dossiers très sensibles notamment en tant que procureur général près de la cour d'appel de Saint-Louis en Donc le président de la République def un choix qui incarne la volonté de promouvoir une justice indépendante et équitable au service des Sénégalais et non une justice au service de l'exécutif. moo tax nomination yi am le 9 août 2024 c'est une suite logique à la suite des assises yi amoon le mai ñu déglu ji discours président de la République au moment ñu koy remettre le rapport final des assises de la justice le jeudi juillet mu am nag trente recommandations au président basiru Diomaye Diakhar Faye sur les réformes prioritaires à mener dans le secteur de la justice. di leen wax ne rek liggéey gii ngeen liggéey du bokk ci rapport yi nga xamante ne dañ koy joxe ba pare dugal ko ci claque ci ci tiroir yi ma bëggoon rek fàttali Sénégalais yi man Bassirou Diomaye fay président de la République du Sénégal xam naa fan laa jaar ba toog fii. du ci pexe du ci amul benn pexe boo xamante ne ut naa ko pour toog fii donc du ma ut pexe pour des parce que pexe des loowul ful nit pexe taxul toog fii lenn rek laa ameel Sénégalais yi ci temps bi nga xamante ne moom la ma yàlla natal ci fii ma toog mooy naka laay def ba lépp li nga xamante ne mën nañ ko soppi bu ma fi doo jege ñu def ci jéego yoo xamante ne ku ciy ñëw tamit loo ciy compte na fekk ne sori na. kon lu ngeen déggoo ci rapport bii lu ngeen ci déggoo te mu nekk loo xamante ne ñi nekkoon ci euh, jam ñaajo ak ñi nekkoon ci plateforme bi ak ñi nga xamante ne ñooy kuréel yi leen yónni wala ñu teewal leen foofu juboo nañ ci loolu mën ngeen commencer dès demain di xool naka ngeen defee matérialisation réforme yooyu donc nomination yi du ay nomination promotion wu ay nomination sanction mais juste c'est le triomphe de la vérité et de l'intégrité ndax képp kuñ ci fal sa parcours sa expérience ak sa intégrité moo tax ñu fal la ñu taxaw ci le nouveau procureur de la République Ibrahima Ndoye ñu nome ko procureur de la République du tribunal de grande instance hors classe de Dakar la décision nag a été prise lors de la réunion du Conseil supérieur de la magistrature le 9 août bi passé Ibrahima Ndoye une des valeurs sûres du ministère public sénégalais ñu ràññee ko ci professionnalisme ak intégrité ci dossiers yu sensibles yi. nekk na parquet de Thiès comme substitut du procureur de la République puis premier substitut du procureur de la République. en 2009 ñu affecté ko Dakar en tant que substitut du procureur de la République mu daal di fay traité nag avec succès ay dossiers yu complexes et médiatiques. Mbecc Tun euh, yàlla na ko yàlla yërëm amoon na doole trop. Mm. Euh, te jàppoon nañ ni quel que soit luñ koy mën a reprocher également pour pour jàpp ko dina métti trop au Sénégal. Mm. Mm. mais moom il avait dit que voilà justice justice la. Mm-hmm. et daf fi nekk daf fi nekk pour tout le monde. Mm-hmm. moom moom également moom moo defoon moom moo defoon loolu. Mm-hmm. donc fépp fu ñu jaar amoo fenn fu nga xamante ne gàkk-gàkk boo ko mën a donc kooku nag moom moo nekk tey le procureur de la république bu Dakar. ci dossier yi mës a traité mun nañ ci ràññee en 2011 l' affaire des chantiers de Thiès affaire bi nga xam ni da doon impliqué l' entrepreneur Bara Tall accusé de mauvaise gestion dans le cadre des chantiers publics de Thiès intervention yu Ibrahima Ndoye malgré la pression de sa hiérarchie judiciaire pour ñu condamner de manière très sévère. Baratal Ibrahima Ndoye a suivi les injonctions du parquet position bi mu am contribué na à l'acquittement de Baratal marqué par une relaxe prononcée par le tribunal correctionnel de Dakar également aussi en 2011 l'affaire Médina Salam affaire bi nga xam ni moo doon concerné double meurtre survenu à Médina salaam ci affaire Cheikh Béthio en tant que procureur de la République par intérim à Thiès Ibrahima Ndoye a fait appliquer la loi avec rigueur ki nga xamante ne boo demee bu procureur procureur général. Mm. mooy le procureur général bu cour d'appel ki remplacé Ibrahima Bakhoum. kooku tamit moom mooy euh, Mbacke Fall. Mm. kooku tamit ku ñu ràññee la ci ci ci ci jaar-jaaram. Mm-hmm. si si ñu ko xamul moom moo nekkoon le procureur spécial ci affaire Hissène Habré. ok moom moom moom kooku moo nekk procureur général présentement ne. donc ko toog kooku wax dëgg yàlla parquetier la bu nga xamante ne ci parcours am yëpp également amul gàkk-gàkk. Mhm. depuis affaire affaire Hissène Habré bi. même même à travers le monde expertise am dañ koy laaj mais ba cour de la ba cour de la haie. Mhm. voilà parce que expérience boobu Sénégal am dafa nekk ñu nga xamante ne dañ koy dañ ko dañ koy dañ koy dañ koy saytu parce que c'est c'est la première fois en Afrique. Mhm. ñu jugé benn président africain ci crime contre l'humanité te moom mooy mooy moom moom mooy ki nga xamante ne moo géré woon dossier bi. Hmm, kooku nag kooku nag tey moom mooy le procureur général près la cour d'appel moom moo remplacé Ibrahima Bakhoum. boo leen seetloo président Bassirou Diomaye jaxaar Faye ci jub jubal jubanti bi la teg nomination yi képp ku ñu fa lekk c'est parce que carrière bi nga am ak sa jaar-jaar ak sa intégrité moo tax ñu teg la place bi nga am. également dans le cadre de la reddition des comptes dañoo mettre en place le pôle judiciaire financier. lancé en juillet 2024 marqué na benn étape cruciale dans la lutte contre la criminalité économique et financière au Sénégal moo succédé wu cours de répression de l'enrichissement illicite maanaam CREI mu nekk nag benn organe buy concentré wu sur les affaires de corruption au détournement de fonds publics au blanchiment d'argent avec une approche axée sur la rigueur et la transparence ay magistrats spécialisés ñoo ko composé le pôle judiciaire financier dafay répondre à un besoin urgent de justice efficace capable de restaurer la confiance du public et d'assurer une gouvernance transparente mission yi mu am mooy lutter contre la corruption mooy enquêter sur les affaires de corruption en ciblant particulièrement les hauts fonctionnaires et les responsables publics mu am aussi tamit ci ay mission la gestion des détournements de fonds y compris celles liées au projet d'infrastructure et la gestion du covid par exemple mais également aussi xeex blanchiment d'argent détecter et poursuivre les activités de blanchiment d'argent pour protéger l'intégrité du système financier sénégal ci nomination yi composé le pôle judiciaire financier mun nañ ci ràññee Pape Ham Diop président de la chambre d'enrichissement illicite moom mooy dirigé les enquêtes sur les affaires de corruption et d'enrichissement illicite El Hadj Alioune Abdoulaye Sylla procureur de la République financier assisté par Abdoulaye Diouf Ibrahima Faye ñoom ñooy superviser les enquêtes et veille à la l'impartialité des poursuites judiciaires yaakaar bi ñu am ci nomination yi ci sunu kanam mooy tabax réew moo xam ni képp ku ñu dénk poste wala nga nekk un fonctionnaire de l'État wala nga nekk un haut fonctionnaire nga war a nag taxawal jub jubal jubbanti liggéey yu am solo yi nga xam ni moo nar a xaar le pôle judiciaire financier bokk na ci nag la réduction des comptes plus de soixante-quinze rapports yi nga xam ni IGE nag Cour des comptes publier nañ ko récemment nekk ci table procureur bi ci gën a fës le rapport Covid 19 par exemple. rapport Cour des comptes bi ñu ko saytoo gis nañ ci jàng nañ ci une série d'irrégularités choquantes mettant en lumière la mauvaise gestion ay détournement de fonds ak ay pratiques de surfacturation à grande échelle alors que le pays traversait une crise sanitaire sans précédent sénégalais yi di dee sénégalais yi dajale seen xaalis état du Sénégal ak ay ressources destinées pour soutenir les populations mais malheureusement. l'argent a été largement détourné exposant un réseau de corruption enraciné au cœur de l'administration sénégalaise. mun nañ taxaw ci le cas de surfacturation sur le prix du riz. le ministère du développement communautaire de l'équité sociale et territoriale dont Mansour Faye nekkoon le ministre du 7 avril 2019 au 1er novembre 2020 le ministère daa def acquisition de riz brisé non parfumé dans le cadre de la riposte contre la pandémie de Covid-19. audit cour des comptes bi dafa révéler ay surfacturation yu rëy rëy dans le prix de l'achat mu dépassé les prix homologués par l'État du Sénégal l'arrêté numéro 007 111 du 22 mai 2013 moo fixé le prix de la tonne de riz brisée non parfumée chez les grossistes à 245 000 francs CFA les frais de manutention étant de 5 000 francs par tonne le prix total s'établit donc à 250 001 francs par tonne mais le ministère du développement communautaire de l'équité sociale et territoriale bi nga xam ni Mansour Faye moo ko jiite à l'époque ñoom cependant dañoo fixer le prix d'achat à deux cent soixante quinze mille francs au lieu de deux cent quarante cinq mille francs CFA. prix bi nga xam ni état du Sénégal moo ko homologué par tonne mu nag entraîné benn manque à bu toll ci vingt quatre mille neuf cent quatre vingt dix neuf par tonne donc le surplus facturé maanaam surfacturation bi boo ko xaymaa nombre de tonnes de yi ñu jënd. boo ko xaymaa surfacturation bi moo ngi toll ci deux milliards sept cent quarante neuf mille neuf cent vingt sept mille quatre cent quatre vingt dix huit francs d' récemment indi woon na sax problème entre Mimi Touré et Mansour Faye. sa diggante ki fi nekkoon <laughs> ministre si jamonoy président euh, Macky Sall di Mansour fay dafa mel ni plainte dox na si diggante bi de te war ngeen a layoo. waaw waaw waaw euh, mais plainte bi j'espère que dina ci boole tous les députés yi nga xam ne bindoon nañu. pour que dix ministres ñëw wuy si haute cour de justice moom ci la mhm. bokkoon ak la ko euh, la ko rapport IGE wax euh, kon war na ma war na leen a boole ci plainte bi quoi mhm. mais comme je dis c'est quand même le monde à l'envers maanaam euh, moom mi nga xam ne moo war a uy moom mooy porter plainte waaye bu boobaa dananu dananu dananu layoo ndax li ma wax moom la sénégalais yëpp wax moom la moom la moom la député yi wax mhm. moom la tout le monde wax voilà maintenant nee na nee na bu nekkee ay sénégalais ñoo koy wax tey tontu na si l'observateur nee bu nekkee ay sénégalais rek ñoo koy wax mën na mun na bàyyi mu jàll waaye ku mel ni yow dayo bi nga am ta nangu nga koy waxal lu mel noonu. mais euh, li ma ko waxal moom la ko conseil IGE waxal ah. na dem lire rapport IGE moom la ko député yi wax pas seulement un ou deux ah. y a toute une liste de députés jotuma ko signé parce que fekk na ñu dàq ma ci diggante bi. Mm-hmm. man ci sama wàllu bopp ba ma nekkee député ak euh, moo. Euh, collègue Guy Marius Sagna dañu bindoon une lettre pour que ministre yi ñëw expliquer sur euh, le rapport parce que du lu bees ah du fi lu bees ngay xëy na bëgg naa fësal boppam et puis jiitu Euh, paaka yi ci barab ko mm-hmm. ni ñu koy waxee mm-hmm. voilà mais moom xam na ne xam na ne de toute façon yi question yi yëpp dinañ ko leeral ci rapport Cour de comptes bi mun nañ ci jàng monsieur Aliou Sow alors directeur d' administration général et de l' équipement maanaam mooy DAGE bi moo nekkoon DAGE ministère bi sortant la Cour des comptes nag mu daal di recommander l'ouverture d'une information judiciaire à l'encontre de monsieur Aliou Sow mun nañ taxaw également sur le cas de madame Ndeye Kati ay entreprise yu bëri la am mu daal di nag gagné ay marché public bu ñu dajalee le montant total yi nga xam ne marché yi mu gagné toll na ci quinze milliards cinq cent soixante dix huit millions. Cour des comptes nag daal di constater que ces entreprises ont bénéficié de marché publics sans mise en concurrence ce qui a permis à madame Ndeye Kati Gadiaga de fixer les prix d'acquisition élevés entraînant un manque à gagner significatif. Ce même rapport indique que l'absence de concurrence et de fixation de prix élevés ont conduit à un manque à gagner de 983,450 millions pour l'État sénégalais ci rapport Covid-19 yi ministère yu bëri bëri bëri Cour des comptes da leen bi ci njëkk mooy le ministère du développement communautaire de l'équité sociale et territoriale bi nga xam ni le ministre Mansour Faye di raqu Macky Sall moo ko jiite woon problème yi ñu fi identifié mooy surfacturation sur l'achat de denrées alimentaire mooy les sacs de des retraits en espèces moo justifiés totalisant 399 millions de francs CFA, des retards significatifs dans l'acquisition et la distribution de denrées alimentaire une mauvaise gestion des fonds destinés à la lutte contre le Covid-19 avec un impact direct sur l'efficacité des actions de soutien social. Le ministère de la Santé et de l'action sociale bi nga xam ne Abdoulaye Diouf Sarr moo ko jiite woon à l'époque foofu tamit nee nañ fa l'attribution de marchés publics sans mise en concurrence pour l'achat de matériel médical et d'équipements de protection individuelle, ay surfacturation impliquant des entreprises liées à Madame Ndeye Kati Gadiaga lu toll ci 15 milliards avec un manque à gagner de 983,450 millions pour l'État. L'absence de traçabilité et de justification dans l'utilisation des fonds reçus, conséquence des pratiques compromettant la transparence et l'efficacité des réponses sanitaires. Également, ñu citer le ministère de l'urbanisme de l'habitat et de l'hygiène publique bi nga xam ne Abdou Karim na moo nekkoon ministre à l'époque problème yi ñu identifié ci ministère boobu mooy l'utilisation des fonds force Covid-19 pour financer des projet d'urbanisme sans lien direct avec la gestion de la pandémie conséquence mooy détournement des ressources yi nga xam ni dañ ko destiné woon pour faj sénégalais yi ressources yooyu dañ ko alloué pour des projet non prioritaires réduisant ainsi l'impact des fonds dans la lutte contre la Covid-19 ñu lim également ministère du commerce et des petites et moyennes entreprises bi nga xam ni Aminata Assome Diatta moo nekkoon ministre. ci ministère bi nag ay surfacturation sur le prix du riz acheté dans le cadre des actions de soutien alimentaire des dépenses excessives pour l'acquisition de denrées essentielles avec des pertes financières importantes pour l'État. cinquième ministère bi ñuy épinglé aussi mooy le ministère des finances et du budget. bi nga xam ne Abdoulaye Daouda Diallo à l'époque moo ko dirigé woon ci rapport bi nag nee nañu attribution de subvention sans justification adéquate notamment dans le cadre du soutien aux entreprises touchées par la pandémie attribution injustifiée de fonds favorisant des écarts significatifs entre les montants calculés et les montants octroyés ministère yi ma lim nag ci rapport Covid-19 bi ils ont été au cœur des scandales révélés par le rapport ku jël ak ku jëlul man damay ne tous les chemins mènent à maanaam cour des comptes moom au plan administratif et financier lay audité def ay recommandation mais parquet financier mooy xóotal enquête bi pour identifier les responsabilités de chacun car tous ces marchés avant exécution am na ay réunion ay ordre laataa ñuy décider wala exécuter ndax nit mënta gañe marché bu toll ci quinze milliards par exemple comme le cas de madame Ndeye Kati